dañuy yëgluwaat lañ doon laaj démb mu di commune Kounoune Kër Ndiaye ak fanweeri site yi leen wër nekk ñaar fukki junni nit ak juróom ñu biral ko ci benn lël fukki junni nit ak ñeent signé ko ñu def étude technique yi am koom bi àndandoo bokk benn men benn deret tey ñun ñooy ñaanaat suñu président Macky Sall que lañ ko waxoon démb en 2013 boobu ak léegi muy juróom-ñaari at muy commune Kounoune Kër Ndiaye moo ñu yitteel moom lañ mooy moo waral suñu taxawaay fii si kër chef de village yu Kounoune wane na ñun am nañu ñaanu suñuy chef de village suñuy imam ak suñuy chef coutumier te bëgguñu ko ñu taf fenn parce que am nañu alal bi am nañ koom bi am nañ nit ñi am nañ àndandoo bi te d' accord nañ pour ne ëllëg bu ñu joxee suñu commune dinañu mën a régler suñuy problème parce que sonn nañ Bambilor lépp fa la jëm mooy capital gi mooy màkk gi investissement yëpp nañ koy def diggante Bambilor Gorom 1 Gorom 2 ñun ay desit la ñuy jox bu fekkee sax ay desit am na. fukki junni ak ñeent nit ñoo ko signé juróomi dëkk trent cité délégué de quartier yi imam yi ASC yi jeunes yi am nañ comme bi. scientifiquement suñu commune dafa wara taxaw. commune kunul keur lañ wax le président Macky Sall xamné ñaar fukki juñu ak ñoo taxaw laaj commune du ay désir politique du désir politique gu nit bëgg-bëggu nit tu tax ñun ñu reculer su na assumer conséquences